jóg jot na pour ñu jëmbal suñu bopp taxawal suñu bopp liggéey ngir njëriñu askan bi boo gisee tey mën nañ ne Tivaouane Peulh Niague daanaka amul dara buñ ko waxee ci domaine de compétence yëpp muy les neuf domaines de compétence boo ci laal rek bopp bi mu ngay metti am na ay projet yoo xamante ne commune bi waroon na ko bénéficier wu lu mel ni PACASEN ñàkk nañ ko ci ay maanaam manque de volonté parce que ku nekk gis na ni dëkk yëpp am nañ ay promoville sauf commune yu Tivaouane Peulh loolu nag li ko waral mooy mal gouvernance ak manque de volonté bi nga xamante ne moom la kii fi nekk maire wane ñu gis ni mën nañ indi beneen wàllum doxalin boo xamante ne tey dina gindi askan bi dina leen génnee ci guuda boobu dañu ne dañ koy def une gestion boo xamante ne maanaam mu ñëpp bokk ak lu ñëpp di pencoo ak lu ñëpp di paacoo moo tax dañuy woo askan bi yëpp ñu ñëw jàpp ci loolu ñu am commune bi nga xamante ne tey mooy gën ci commune yi. côté aussi ci kaw loolu ñu am un conseil municipal bi nga xamante ne tey dinañ mën a di jaamu soxla askan bi waaye pas comme conseil rural boo xamante ne dañ fiy nekk di jëriñoo askan bi. ci loolu nag ci laay sukkandikoo ci li ma fi wax yëpp. di ne maa ngi déclarer solennellement sama candidature aux élections locales